ah yow it da ko xam ne SMS ñëw na ñëwati nga bibis ci appel bi yow ah. ah ci laay ni dugg demal duggal ci laay nag di nga xam ne ñoom du ñaxu ñebe ah yow bibis ku jug nga yeb ko kolu nga noonu ba mel appel bi hmm, appel bi boo may doon di nga ko coow appel bi. duñ nangu loolu sax sama mbokki laay na ñoo sañ dem leen laay maxtaar Seydina Issa laay baax na waaye bébis ndax man damaa xam ah, ñaata ñaata façon ñaata ñaata couleur yi voile nga sol kol nga voile koloo xartum sol voile nga wonees bébis kafut di day dem yow oyofal nga ko nii di wallaahi fonk nañ seet diine lool kay yow problème mu dii nga am ko waaye di nga ne ko ji ah waa yow waa Malika du ngeen dajaloo def tour génn oh baatu laa ilaaha illallah ah soxna bibis xaw ma looy nuroog lu ñu rosi ba noppi nii bibis encore bibis encore toi bibis rek leel ah baax na man de appel bi suba damaa naroon a kol dikk deuxième jour bi waaye comme que bibis way na ci yaa ngi dégg déggam déet way na ci te leer na man dana dem man de mer naa kontaanuma ci yow de looy rajji-rajji nga mel ne pontu miir sa kanam gi di mënu roog leelu leelu seega wara ba yow yow mii bibis waaye gisee sa bëdi xóot mel na teen kay laa xam ne dangaa xiifoon nga naan mën na joxe lekk dangaa lekk ji kon d'accord nii la mën a demee kenn kay nga bañut nii nga defoon ak sëñ Fallou ci a rajab gi yaa ngi waa waa kër borom daaru maam Thierno màggal daaru Moussa gi waa man Malika gi Malika ak ni ah, amul quelqu'un bu mën a ñëw rek ah de tomber enceinte ab hmm, tawee ko du mel ne sa ngom toof maa ci waxaat merci merci bibis ah.